ma gis ngay statut ay joueur football ku ci mel ni ku ci mel ni gànn gëy ma capturé capturé ko mi ngi nii envoyé ko sama réalisateur bi xaw ma looy won gànn wala xaw ma gànn di woon ni yéen ñaar xaw ma lu ngeen mën a waxtaane waaye xam naa ni yow mii doo toog ak gànn mii ta ñaan parce que gànn sénégalais la man sénégalais la Bassirou Diomaye Faye sénégalais la Ousmane Sonko sénégal dañuy dem ci sëriñ si ñu leen ñaanal dañuy ñaanal ah. Gana moom lan nga ci moom. yaa ko yóbbu euh, Paris saint ma yóbbu ko Everton. wala yu wa wala lan nga def ci Gana. waaw waaw non xam nga lii moom. waaw dama si mën a tënku carrément xam nga ñaan man wax naa la ko sa saa yu ne man bëri na kilifa yu may ñaanal. da ngay ñaanal ki yow. waaw man bëri na kilifa yu may ñaanal lii maa ko capturé si sa WhatsApp. <laughs> waaw d'accord non moom man na kilifa yoo xamante ni maa ngi jëflante ak ñoom man wax naa ko ñu may woo ñëpp wax naa ko ci émission man nit boo mu rek. nag moo wax fulla ñu jàll ci leneen Gana Gueye mi da koy ñaanal wala ñaanaloo ko parce que Gana yenn saa yi day dugal ay but yoo xam dali woon du xam-xamam waaw non parce que du attaquant yenn saa yi bi lay toll fetal mu dugg day loolu lii bitu baatin la waaw non man da nga koy ñaanal ko moom même même bu ñu ko ñaanlu sax war nañ koo ñaanal ndax eh, eh, <laughs> waaw Gana Gueye bi da nga koy ñaanal wala ñaanaloo ko waaw hmm, wala déet rek laa soxla waaw waaw non mais tey yow tey yow mii tey waaye xam nga ci tey lu bëree bëri. waaw magam sama waaye la. waaw mooy mooy ki yor parking bi. waaw nu mu tudd. Bekaay Bekaay sama xarit la. RBS waaw waaw moom suñu waay la moom gànn la. waaw wax dëgg yàlla Bekaay. Ah, gànn tamit wala gànn pour nga koy ñaanal kon. Bekaay gànn tamit waaye ku respecté magam la. man magam dañuy ànd yàgg neen. Mm-hmm. lu bëree Mhm. kon faw ñu mën a def ñu ñaanal ko si ma suñu bopp sans moom mu jox ñu dara wala sans ñuy xaar ci moom benn retour a ah, déet gaan nag moom du la ñaanale dalay jox boo ko ñaanalee dalay jox waaw ay milliards la toog waaw mais non non koo ñaanal saamu mu jox ñu dara xam nga xam Sénégal waaw tey dafa nekk loo xamante nii nit ki mën koo ñaanal saa te gisoo ko nit ki mën nga koo sopp di ko ñaanal te gisoo ko man ñaata jour laa ñaanal te xam te ma génnewu ma leen bëri na no bari na du ma ko wax xam nga fi mu toll ah, am na si ñeneen ñoo xamante ni léegi ñu remplacer Sadio maane waaw léegi ma am jour bu mel ni Sadio Mané si équipe nationale yow mii waaw daam koy tàggat. waaw man koo xamante ni léegi mu mel ni Sadio Mané. kàlla non bàyyi noonu. ah Lamine Camara la non loolu daal du ma ko wax. man xam naa daal bu mën a ñëw mel ni Sadio Mané. man daal xam naa ne. waaye dina booy Ismaïla Sarr. war na mën a nekk non kii booy kii booy cees bi. waaye ku dëkk Thiès waay Pape waaw waaw ah, man daal du ma si wax kenn waaye daal moom man ak magam ay waay leen ñu yàgg lool seq lu bari mhm. moom tamit waaye mu respecté magam. ni ngay gisee ni ku fonk magam la wax dëgg yàlla. Ah, waaw ah, ndax benn ku baax la ba pare taxi bi moom dafa jullite trop. ndax nit moom loo mhm. mën a wax ci nit ki moo ci li nga mën a seede ci moom ci li nga gis. Mhm. gis naa mu nekk jullite ba pare fonk magam waaye ba yemalewu ko dara ak ak moom. Ah. mais d' accord mais tey Mara. tey ñii bu ngeen leen doon ñaanal tey. parce xam naa ne même bu la ko laajul. même bu la ko toog nga sa kër tey sa kurus di ko ñaanal. tey boo ko doon ñaanal ñii ñii ay gànn lan nga leen di ñaanal. waaw loolu xanaa doo leen ñaanal alal ndax am nañ ko ba pare. Mm-hmm. da leen di ñaanal ñuy gën a dugal wala ñu am club yu baax. Mm-hmm. wala ñuy bañ a blessé wu. wala lan. waaw non xam nga doomu aadama moom. muy mm. bu mu mën di nekk bu dem ba toll benn. niveau bi benn lii bu sori sori. te doo am ñaan. waaw mënul ñàkk am ñaan ndax ñaan dafay jàppale nit ki ba ci biir bàmmeel ñaan ma dina topp nit ki ba si ay sëtam sëtaatam kon ñaan fii leen ko fekk te fii mais yan ñaan lañ soxla spécialement ñoom xam nga. Hmm? waaw non ñoom <laughs> xam nga. xam nga équipe nationale tey mel ni équipe nationale Sénégal. Hmm. wala mel ni Everton. Hmm. poste bi muy football am na concurrence am foofu. waaw na waaw. waaw xam nga man daal man daal man moom fii ak moom. man wala lan man daal man daal wala keneen ku lay concurrence ak yow dinaa damm tànk bi wala ban façon ñaan nga. moom man moom man moom man gis nga fi man jël na ay coupe. waaw ay coupe coupe. loolu moom yow. sport ak football moom da nga cee aay. man yooyu ma si wax. Mhm. man damay wax benn saa su ne ay nit. man ku ma woo sa aajo sa dina faj mais jour yi ñaan yu ñuy gën a soxla mooy leen la bu baax. dafa bëri mbir yoo xamante ni dafa nekk ci biir. Mhm. bëree bëri bëri yoo xamante ni ñëw mu toog fi di ko. wax di ko wax. waxuma nag ci moom mais ci ñeneen ak ñeneen ak ñeneen te joueurs yi bëree bëri ma seen carrière lu ndaw moo koy yàq. waaw mhm. tey moom mii ni moom mii tey bu demee tey ba carrière am toll fi kon war nga xam ne kii kii ku fonk boppam la ci lu bëree bëri maa la ko wax waaw ndax may jour boo gis benn carrière am teel a yàqu noo xoolaat boppam bu mu ko jëñ kenn ne ay liggéey wala dara. daawut daa amul ñaan daa amul ñaan. teg ci tamit mooy na dem xool boppam mooy ci lu bëree bëri mais jour bu dem ba heure bi mooy di football. yàlla di dogal benn sa tour di gën a jug. waaw yàlla di may gën la defal benn tawféex ah. Hmm. kon loolu sant yàlla. am am na la ca rax. waaw non sant yàlla rek sant yàlla. ndax tey moom mii nii tey boo xoolee. Maxime bu mujj ba mooy si moom hmm. mooy seen yoon yu mujj nii. waaw li mu dugal. non man waxuma sax lu mu dugal mais ci. Euh, mais dugal gànn. <laughs> waaw sant yàlla li ma jaaxal gànn da gars yi day jékki-jékki non gànn ah amatul place équipe nationale bi ci lay gànn di gën a toj adduna bi. mais mais yëpp saa ci ndimbal ah, yàlla bokk. saa dëgg la la ma wax de. équipe nationale nga Aliou Cissé daf ñoo yeb. gànn gay Cheikhou Kouyaté waruñoo départ nangam. te bu gànn duggee mooy changé match bi. <laughs> mais loolu yëpp saa ci boo ko mooy poñe match bi gànnaay daw teere ndaanaan bu mag a ngi. mais xol bu rafetee def loolu. ah football amul ay xol bu rafet nag Mara football amul loolu de ay xol ah, ah, sa xol mu rafet rafet bu new sa tànk yi mbaa mu ne sa bopp bi doo ko def non non loolu waaye maa xol bu rafet laa yor te xam naa ko te mënuma football Mara ba di ma baabee noonu waaye loolu yëpp ci xol bu rafet la ma ne ñaan am na ñaan tamit waaw non mais ñaan yàlla am na ah. waaw nit julli tamit ñaan ama tey mbir yi tey Cheikh tey secret tey da see nekk lu xam nga man wax naa ko saa ne je marque yow da nga koy defal je marque waaw waaw mais loolu yomb na loolu moom lu dara loolu benn baat la rek boo xamante ni booy bind waa lu jëm ci sa marque mais waa bul jàpp ne mais da nga ko jox sa marque <laughs> yow bul jàpp loolu. <laughs> bit yee rëy yi nga xam ne du dugal ah, man daa rëy ci atta ci bile terrain. <laughs> mais dafa am jom rek daa daa am jom. maanaam déggoo ma de. Ah. mën ngaa am jom lool waaye doo mën a dugal bit. ah mais daa am jom daa am jom pare waaye daa xam lu mu bëgg rek. daal na ah. waaw xam naa yaa ngi vacances Sénégal loolu dina leer. waaw dem ci gëstu ma ak moom. Mm. dinaa topp enquête boobu ba mu jeex. incha allah wax dëgg yàlla ku baax na lool. ma bu baax di nuyu mais c'est bien nit ku baax la baax a baax nit ku nga xam ne tamit dafa représenter réewum partout mm. dans le mm, monde mm, gis nga loolu yombul de dëgg la Sénégal fu ñu toll ni yaa ngi ci 17 wala 18 millions d'habitants yàlla boole la ci nit ñu nga xam ne boo génnee tee drapeau Sénégal téye ko ca kaw jar naa sant yàlla te il a toujours représenté la Sénégal très dignement partout dans le monde Gana Gueye ba mu nekkee Paris Saint-Germain ci laa commencé sax bëgg man Marseille laa woon ndeysaan ndax man damay sot mhm. Marseille laa woon <laughs> mais ba Gana ñëwee Paris Saint-Germain ci laa toxu dem Paris mhm. parce que dama ne sama mbokku sénégalais nga fa dama koy yéene réussite mhm. damay bëgg club bi nu ñu amee yaakaar ci moom yaakaar boobu yàlla may leen ndam ñoom waa Paris Saint-Germain may supporter Paris ba léegi ci laay supporter Paris saint laa doon supporter parce que Arsenal ba fay Patrick Vieira de football. ñu koy woyal naan ko Vieira come from Sénégal for play Arsenal. Mm-hmm. le mot Sénégal boobu ñu doon wax ci biir stade bi. ay tubaab di ko woy moo ma neexoon ba may faral Arsenal. Mhm. mais Garna ba mu demee Everton ma topp ko Everton man noonu laay def de. fu ñu toll nii bu xëyee suba ñëw euh, AC Pikine ma supporter Pikine. Mhm. man noonu laay supporter euh, mhm. équipe. du ma équipe parce que lii moo nekk sama xol non man ay jour laay topp. ay sénégalais lañ man te représenté na réew mi fu ne. sagal na Sénégal fu ne. tey bu ñu xamee nit ñu mel ni yéen. même buñ leen ko laajul ñoom. parce a laaj. ñii xamuñu dara bu ñii. Mhm. bu weesoo football bi ñuy football. Mhm. jóg dem entraînement. mënuñu mhm. def leneen leen lu ñu defal seen ay mbokk leen koy defal. tey da lay wóor ne boobu xëy na mooy ñëw ne ak ñaanalal ma sama rakk ji. wala am na ñenn ñoo xam ne seen yaay yeey jóg. ne leen sangatul lii force. dafa am ne ko jabar tubaab la am. yàgg na ci réew tubaab yi. boo xamul ay ñaanit ñaanal leen ko. yàlla may ko wér gu yaram. ñaanal leen ko bu mu am blessure. su ko defee mën a continuer di représenter Sénégal yàlla may na la xam-xam ci loolu mm-hmm. gagné nga ay coupe ay coupe mm-hmm. muy fii muy ci dëkk tubaab yi muy fune mm-hmm. bu demee ba am relation ak yow xool bu rafet la ko yàlla fay kon ñaanal leen ko ci barki non moom da nga koy ñaanal yàlla yàlla jàpp jërëjëf bu baax ndax marabu